ñu jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd wér waaye di ko ñaanal mbooleem kilifa yi dina yëpp mbokk di leen ndokkeelaat ci bis bu mag bi nga xam ne moom lañ génn muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bisu màggal Touba di bis bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo santaane képp koo xam ne mbégam mooy sa mbégte bis bi su del seetee ci àddina nañ ko septembre doon fukki fan ak juróom-ñett ci safar 1445 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ko santaat bu baax a baax yàlla suñu borom mi ñu may ñu fekkee ba dundal ko xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane màggal Touba événement la boo xamante ni dañ koy dundal avant pendant et après muy événement bu mag a mag boo xamante ni comité d'organisation bu maggal bu Touba ci njiital sëriñ Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdoul Khadir ak mboolem commission yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bu ni mel dañ ciy def liggéey yu am solo ba tax na ginnaaw ñu fas yéene amal jotaay boo xamante nii dañ koy seq ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma mi nga xam ne moo jiitee commission culture ak communication ci comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba ngir ñëwaat nattaat li nga xam ne moom lañ def ci Magal Touba édition 2023 bi ci fànn yu wuute sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la massaw coono ndax màggal gi li door jugee rek gis nañ coono yu mag a mag yi nga xam ne dañ ngeen ko ci lépp rek ngir wasaare njàngalem Cheikhul Khadim waaye taxawu ñi nga xam ne ñoom lañ war a euh, jox li nga xam ne moo gën ngir ñu mën a dundal màggal gi ci Touba Mbacké rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy gan ñi. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh <clears throat> ñu ngi leen di di fay di am mbégte ci euh, ànd ak yéen ngir dikk ci xayma li nga xam ne moom lañ jot liggéey ci màggal gi. di ci comité bi liggéey ak li nga xamante ne bii moom la màggal gi làmb woon lépp ndax màggal gi li nga wax léegi dëgg la màggal gi dafa rëy rëy na rëyaay boo xamante ne bii. foog naa ne waxtu nekk dañ ko war di gën di saytu di ko gën di xayma ngir xool naka lañ ci gën a mën a jëriñoo ndax njëriñul kese la moom la feese namm biir ak biti kon aussi ginnaaw bu ñu leen sante nag yéen ci seen taxawaay bu bu rafet muy mbooleem presse bi yëpp ndax yëf yi ni niñ ko jotlee ren xam naa ne du ma ne mus am de waaye ren moom ñëpp nangu ne ne jot na ci ci anam goo xam ne anam gu gu mat sëkk la di sant itam ki nga xam ne mooy doon liggéeyloo muy Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne moom mooy Sëriñ Tuubaa tey jii eh, waaye nag di sant surtout nag kii di ba Bassirou mu Cheikh Abdou Khadir nga xamante ni moom moo jiite comité d'organisation bi te bépp ndam bu ci am rek eh, gannaaw yàlla jëmm ma tax eh, ndax moom moo ci tax taxawaay boo xamante ne bii kenn ku nekk loo aajo woo rek waxtu wu nekk na nga ko aajowoo noonu la ko joxe ba tax ba commission yëpp liggéey liggéey boo xam liggéey ba rafet la ci coordination sëñ sëñ Ousmane kon ñoom ñëpp ñu mat jaajëfal ñoom ñëpp ñu mat ñu mat sant. sëriñ bi ku ne Magal Touba ne euh, wàllum culture muy euh, li nga xam ne dafa jëm ci euh, li ñu ko doon waxee ci jamono weesu ci bernde yi nga xam ne moom lañuy baaxee taalibe yi muy xéewal yi yi nga xam ne ñi sant si Lo moom la ñuy def waaye bernde ru yi da ciy am solo. loolu ban liggéey la ci commission culture bi def ren ji ci màggal gi lañ cey jiital rek mooy euh, gis nañ Cheikh Mamadou Mountakha bi ñu defee déclaration màggal gi ci le premier safar santaal ne woon na njàngal alxuraan gi te jiitaloon ko ci liggéey boobu ndax loolee wéeloon nañ ko ba ci màggal gi ak lan lañ ci jotee liggéey ci wàllum njàngu alxuraan googu. waaw xam nga benn rôle yooyu nga wax daa nekk li nga xam ne mooy li ci ëpp solo euh, ndax léegi beneen berne beneen berne bi sax léegi yaatu na yaatu boo xamante ne bii daanaka bis bu set ci mi. ñëpp dañuy màggal seen i kër. donc xewli sëñ moom noonu la noonu la toll. waaye bis bu toll noonu boo ko boo ko wootee ñu ñëw sa ay nawle yëpp dikk. ci biir réew mi ak ci bitim réew. Euh, kenn ku ne aussi gis ne sëriñ bu mag bi ni euh, nga xam ne noonu la taxawaay bi mu am ci xam-xam. nga xam ne man nga ne li mu bind bu fekkee am na ko bind bëriwul. wala boobu man xaw ma man xaw ma ko bind loo xam ne toll na li sëñ bi bind. Euh, ku mel noonu nag boo koy boo koy liggéeyal. nga xam ne bañ koo bañ koo bañ ko jiyee ko da ngay jihaat dama xoon ñëpp xam nañ ko damay jeexaat waaye nag ci ragal yàlla ak xam-xam kon foog naa ne foofu mooy fa ñu war a insister ndax loolu mooy li ñuy euh, li jariñ euh, ba tax na comité bi jël wàllu xam-xam bi jiital ko d'abord ngir nit ñi jàng ci ngir euh, tasaare li nga xam ne mooy njàngale Sëriñ Tuubaa ci biir réew mi ak ci bitim réew ak nag ci niti xam-xam yi nga xamante ni ñoom lañu invité ñuy dikk di ko di ko fekke si ñu gis ne màggal gi dafa xat ci jëmm bis màggal gi ak sax fan ñu ko xaw a jiitu tuuti ñu ne kon loolu dañ koy tàmbali lu yàgg balaa màggal gi boo seetloo bu bu weeru teroo rek ci fan njëkkee ci lañuy def conférence yi nga xam ne ñu ko def ci penc yi ak raw doon ko def ci penc yi yooyu ren ji jot nañ ko jot nañ ko def boo seetloo itam bu weeru safar teroo rek ci la mboolem jumtukaay yëpp muy télévision muy sit muy rajo ñëpp ci la ñu commencé teg ay conférence yoo xamante ne bi ak ay waxtaan yoo xam ne mi ngi jëm ci sëriñ bi jëm ci magal gi jëm ci lislaam rek kon yooyu dañ koy enregistré loo xam ne jiitu na magal gi lu yàgg yooyu aussi liñ ci def euh, bari na bari na lool lépp ñu defe ko foofu ci Touba dajale borom xam-xam yi képp ku dikk ne damaa bëgg lu mu waajale magal ci wàllu xam-xam ñu ci thème sangam laa soxla ñu wutal la ñoo xam ne mën nañoo waxtaan ci tem boobu nga seq ak ñoom jataay euh, gis nga itam ci biir màggal gi ni nga xam ne noonu lañ doon defee ci conférence yi nga xam ne ci buñ ne suba màggal ak ci bisu màggal gi loolu aussi bokkut ak plateau yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci kër sëñ Tuubaa yi bokkut ak aussi conférence yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ca fa nekkoon ca ca héliport kon ay jataay xam-xam yu bare bari la même cérémonie officielle bi dañ ko tuddee cérémonie officielle waaye boo dégloo discours sëñ bas da ngay xam ne am njàngaleem kese la ah, daanaka sax am benn partie boo xam ne concerne na wàllu àdduna lépp njàngaleem Sëriñ Tuubaa la kon day mel ni màggal gi ca wàccaay wa ke tàmbali ba banam jeexe lépp xam-xam la loolu nag at yëpp noonu lañ koy doxale te foog naa am na njëriñ loo xam ne indi na ko am na loo xam ne aussi yokk na ko ci màggal ndax képp koo xam ne màggal si nga rawatina sax ñi nga xam ne ña nga toog seeni kër ndax dañuy jot ay euh, téléphones yoo xam ne bi réew lay jóge fi doon ñoo ñoo ñi gën a jariñu ci màggal gi ndax ñoom dañuy dañuy féex am jot toog mën a seetaante yëpp dañuy bàggante liñ ci xam sax ñun ñu ne ci biir liggéey bi euh, daanaka duñ ko ci xam nga xam ne kon vrai ci dëgg-dëgg njëriñ lépp njëriñ kese la loolu aussi ñu ci sant nag waa Rawdu Rayaahiin ci seen taxawaay boo xam ne taxawaay bu bu rafet la ak seen disponibilité ñu ngi ciy sonn coono yoo xam ne ñoom fi mu toll nii bu màggal jàllee rek tam nañoo waxtaane déwén yan thème la ñuy yan thème la ñuy euh, la ñuy indi ñan ñoo koy def naka lañ koy defee fan lañ koy defee fi mu toll nii ñoom bu ñu nopp rek commencé waat seen ay réunion ak mbooleem nag borom xam-xam yëpp ñi nga xam ne aussi bokkuñ ci rawdu te itam di participer ci liggéey boobu ci anam goo xam xamante anam gu mucc ayib anam gu rafet la ci ci ak sellal goo xam ne gu mat sëkk la hmm. bu dee lu jëm ci wàllu njàng alxuraan gi mel ni màggal gi tamit dañ ko ci dundal bu baax a baax. bu dee njàngam alxuraan mi loolu boo seetloo bañ ko tàmbalee ëpp na fukki at 2011 lañ ko tàmbali woon ñu ngi koy defee ci barabu jullikaay bi ci wetu armeel yi waaye loolu dañ ko fay tëjee premier safar ci la daara yëpp di jàng ca seeni biir daara bu ñu nee magal ñetti fan ñaari fan ñu jël ñu jël leen nag dajale leen ci penc mi ñu fay ñu fay jàng. vingt-quatre heures sur vingt-quatre yëmul jàng alxuraan dañuy jàngale aussi ay ay xasida bu ñu jàng alxuraan mi suñ Xaadi euh, euh, Jaxate moo ko jiite bu ñu jàng xasida mi suñ Moussa Mbacke moo ko jiite buñ demee ba mis walu màggal ci ginnaaw tisbaar diggante tisbaar ak takku san ci la sëriñ Bas di ñëw saafonte ak ñoom yeewi leen muy nekk si jataay boo xam ne jataay bu bu am solo la ndax ci biir jataay boobu Euh, ci lañuy ñuy joxe euh, ijaasa yi nga xamante ne bii ñu mokk alxuraan foog naa ne ren lañ fa joxe ëpp na suma su ma foog naa mën na ñaari téeméer te loolu la lim bu ndaw la rek ci daar yi nga xam ne ci ci Tuubaa ci jataay boo aussi lu yéen am fa ci ñaari minute ci la woo dong yëpp ñu wàcc kamil bi ci ñaari minute ñaari minute ndax kenn ku nekk daa am lu la sas ñu jàngandoo ko xam nga kon bu ñëpp noppee rek kamil bi jeex na noonu lañ ko organisé man loolu mosuma ko gis mosuma ko gis même sëñ Bass wax ma ne lii mosuma ko teg bët deux minutes ci ko def kenn kon ne laa sas dara da nga tàmbali fii yem fi tàmbali yem fi ñoom ñëpp ñu ñëw ku ne jàngale la sas kaamil bi jeex tàkk maanaam ci gàttal donc la dañuy séddoo kaamil bi ñëw ci ñaari minutes kenn ku ne tari leen la sédd kon kaamil bi jeex na loolu bindoon nañ fi kaamil ci benn bis jëbbal ko sëñ bi foog naa ca kalogu 2014 ba la woon bii yoon nag nii lañ ko defale loolu lépp di tegtale euh, moom gi nga xam ne suñu tubaab moom na nga alxuraan <laughs> ak li ko ci yàlla may jataay boobu aussi di jataay boo xam ne bu bu yitteel sëñ bi la ndax day mel ne mooy mooy lewete lépp mooy lewete lépp nga xam ne kon màggal gi tey euh, nit ngi sax duñ seet loolu feet la bernde la waaye buñ ne bernde da nga koy da ci am dig-dig bu yaatu bernde du du lekk ak naan rek du du loolu dong ruuy ci la bokk eh, kon loolu aussi ci bernde bi lay dugg ci bi la dugg <laughs> ba léegi ci euh, wàllu googu muy bernde yi euh, bernde ruuy yaakaar naa njàng xas dëgg yëkkati ci lay bokk ndax gis nañ ne euh, màggal gi tamit ñu ci bëree bëri moo xam jànkati aw yi la moo xam ñi ñi ñi ñi rajas la moo xam ñi kuréel la nga xam ne dañu nekk ci ci ci li wër jumaa ji di ko amal loolee tamit dafa mel dundal nañ ko ci màggal gi bu baax a baax lam loolu day feeñ ci programme télé yi mm-hmm. te boo xoolee plateau bu tegee koo xam ne day def waxtaan mais gis mu jàkkaarloo koo xam ne day yëkkati loolu télévision yëpp dañ koy def foofu ma la wax aussi ne fa la ñuy tëjee njàng mi ci sëñ Moussa bu sëñ Mahamadan jiite ko foofu tam dañ fay waxtu nekk kuréel ya ñoom itam ña ngay ña ngay jàng même gis nga guddi màggal gi waa isbu yi ci bis bi ñoom itam dañuy fanaane jàng ba ba fajar eh, keroog bañ jógee ca ca gan ña ay une heure deux heures du matin la fa sëñ bas dem toog fa ñëw fekk tant bi fees dell ñu ñu jàng rek kuréel bu jàng ba noppi rek ñeneen di ko toog nga xam ne kon màggal mhm. gi dafa ci fànn googu dafa dafa matale te loolu nag jàpp naa ne mooy li nga xam ne mooy li gënal mooy li gënal sëriñ bi mooy li gënal li ko gën a yitteel te léegi nit ñi suñu borom xetal na leen ci ba aussi mooy liñ gën a fonk ci ci màggal gi Euh, ñu delluwaat ginnaaw tuuti ci euh, conférence yi nga xam ne moom nga doon leeral sànq mi waxtaan yu am solo yooyu ndax dañuy gis ne dafay am thème yu am solo yoo xam ne moom lañ ciy développé ndax ginnaaw waxtaan yi ko jël di ko xaatim def ko ay téere yoo xam ne peut-être euh, universitaire dañ ci mën a jariñu ñi nga xam ne dañuy gëstu daañ ci mën a jariñu waaw boo seetloo yoonu mur ci boppam laa lay wax ba 2010 jàpp 2011 li liñ doon bind ci ay téere bari wutoon bokkutoon ci su suñu aada boo seetloo delluwaay bi sëñ Bassirou la doon nekk wala sëñ mu Lamine Diop Dagana bëriwutoon lool lool lool waaye day mel ne bi ñu commencé yii li nga xam ne moo fi génn ci ay téere kenn xamul nu mu toll euh, ñun colloque ñu def 2011 bu léegi bu ñu def rek dañ koy tënk génn ci téere waa rawdu yi at mënuñu génn ay téere parce que ñoom itam waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def dañ ko boole di ko dajale di ko di ko móol di ko def ay téere luñ ci yem ci arab lañ koy génne ndax waxtaan yëpp ci arab la mm. waaye buñ noppee danañ fexe ba traduire ko ci français fexe ba traduire ko ci ci anglais mu liggéey boo xam liggéey bu rafet la mm. loolu aussi di encourager xale yi ñu gën a fonk xam-xam damaa dem euh, Nabaxiya ay 2012 2013 Mauritanie fekk benn xale bu bu dëkk Touba ñuy waxtaan bi ñuy waxtaan mu ne ma sëñ bi de yéen a ma tax a ñëw fii ndax taxawaay bi ngeen am ci màggal gi moo tax ma laxas jàng si kon loolu day am influence boo xam ne da koy da koy da koy da koy def ci ndaw ñi ndax ci kanam tuuti ku amul xam-xam dana jafe nga bokk ci ci yëf yi ndax xam-xam moo boole xale nag loolu ñu ngi koy ñu ngi koy xam moo tax ñëpp fi ñu toll nii ñuy dem di jàngi nga ne kon day mel ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy def daa am da da dafa soppi environnement bi ba léegi nit ñi au lieu que ñu jongante ci yenn yi ci oto yi rafet ak ay terrasse léegi nit ñi ci xam-xam bëgg di jongante te loolu ci kanam tuuti dina dina fës loolu nag bu dee am ne xam-xam bi dikk loolu mooy sabab bind téere yi euh, wax naa ne keroog suñu mën a xam moom ko wax ci làmmiñam moo ne ma li xam ne am nañ ko ci pas-pas ak li nga xam ne am nañ ko ci taxawaay bu ñu amee xam rek kenn ñu attan boobu ci université bi lañ waxtaan kon loolu tey jii ñëpp xamee nañ ko noonu moo tax téere yi moom bari na lu luñ ci def lu ci ëpp dañ koy tënk ba du ba du réer bind ko ci ay téere mool ko tasaare ko. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu leen fàttali ñu ngi ànd ak euh, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma di président commission culture ak communication bu comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba ñuy amal waxtaan rek jëm ci xayma jëm ci euh, Magalu Touba édition 2023 bi Serigne bi màggal gi fu ne la doomu aadama di bàyyeekoo di ñëw ci dëkk bu sell muy ci biir Sénégal mu ci bitim réew ndax at mu jot ñu xayma limu taalibe yi nga xam ne ñoo ñëw ci dëkk bu sell bi ren tey ji ren bu ngeen defee ab xayma euh, lan la leen jox ci nombre de pèlerins yoo xamante ñëw nañ ci Touba. waaw xam nga loolu 2011 lañ commencé jàngat yu benn noonu parce que boobu dañ doon màggal rek am ginnaaw ba nag ñu nekkat loo xamante ne bii xayma woo ko ba xam naka la day hmm. saytu bi day jafe. dëgg la ndax boo xamul ñaata nit ñoo fi ñëw. doo xam lan nga war a waajal ngir nit ñi buñ dikkee seen nekkin am ay jàppandal mm-hmm. boo xam màggal gi tam lan lay lan lay jur ci ci wàllu koom ak ci yan ci yan secteur lay lay gën a génne doo xam aussi naka ngay jariñoo ci wàllu zahir ci màggal gi ak ñi nga xam ne ñooy homme d'affaires yeeg ñi nga xamante ne bi aussi dañuy yëngu ci wàllu koom ak ak li nga xam ne mooy mooy réew mi euh, ñu commencé ko 2011 defaatoon ko deux mille deux mille quinze deux mille seize ren jii tamit ñu defaat xayma yi boobu Moubarack Loum moo ko defoon ren jii aussi moom lañ jëlaat mu def ko ci ñu gën a xereñ ci fànn googu ci Sénégal la bokk suñu borom may ko ci loolu aussi ñëpp nangul ko biñ ko bi mu ko defee moom dafa jël juróom benn bunt la jël juróom bunt juróom bunt la jël ci Touba yoo xam ne dañ fay jaar di fa di fa duggee foog naa bi nga xam ne mooy ngaabu ci la bokk bi nga xam ne mooy euh, mooy péage bi ci la bokk ba ci Daaru Musi ci la bokk ma nga xam ne moo jógee côté penku ci la bokk noonu la ko def ba ba mat juróom bunt léegi bunt bu nekk mu teg fa ay enquêteur enquêteurs yoo xam ne vingt quatre sur vingt quatre dañ fay nekk bu kii ñëwee taxaw nangam waxtu day dem keneen ñëw wutu ko soo defee képp ku dugg si rek dañ lay compter moo xam oto la oto mag la oto bu ndaw la moo xam sareet la moo xam Jakarta la képp ku dugg si rek dañ lay compter euh, loolu bi ñu ko bi ñu ko defee ñu ngi ko def diggante ajuma ji jiitu magal gi def ko ci gaaw bi def ko ci dimanche ji def ko ci altine ji ba wàllu onze heures nga xam ne jàpp nañ di waxtu woowu ñu war a dugg si ñëpp euh, dugg si nañu nga xam ne kon même defuñ ko sax une semaine à l'avance gis nañ ñi nga xam ne dugg nañu Touba ci dig-digal boobu man na cinq millions huit cent soixante quinze mille yoo xam ne day tegal juróom million yu teg. juróom nga naan juróom benn million yu. ci manqué tuuti waaw. Ah, waaw waaw daanaka ji na juróom benn mm-hmm. million la. Eh, loolu ñu jël ko méngale ko ak magal gi dama tolloon eh, juróom ñetti at ci ginnaaw ñu gis téeméer bu nekk yokk na ñeen fukk ak ñaar 42 pour cent de taux d'augmentation ci juróom ñetti at loolu dañoo di firndeel taux de croissance bi am Touba ndax Touba rek mooy dëkk bi nga xamante ne bii. boo ñëwee di jël croissance bi daanaka jege na pour cent ci ni nga xam noonu lay yokkoo par par at. Hmm. nit ñi li nga xam noonu lay dikki di dëkk si. croissance démographique croissance démographique bi. donc loolu di mbir moo xam ne mbir mu mbir mu yéeme la nga xam ne màggal gi eh, ren jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar te jaadu na ci wàllu ndox mi ci wàllu assenissement bi. ci climat social bi nga xam ne mi ngi nekk ci réew mi ak coow yi nga xam ne moo fi moo fi xaw yëngutu yeeg yu mel noonu euh, nit ñi. mabbu ñëpp wut si Touba loolu day mbir moo xam ne mbir mu yéeme nga xam ne day mel ni Sëñ Touba ci ci jafe-jafe ci lay euh, ci lay wane boppam ci lay wane boppam loolu defuñ ko ngir di ko puukare woo déedéet passé nañu foofu ndax ndax ndax Sëñ Touba doon na tiitar Sëñ Touba doon tiitar boo ko amee boo jëmee tiitaru da nga ñàkk xorom ndax munoo am tiitar bopp si bi waaye dañoo am euh, obligation dañoo am warteefu xam li dugg Tuubaa nu mu toll ba ñu mën a xayma lañ leen fay indil ci ay jumtukaay naka la war a day buñ ko xamul dañuy di dem ay jafe-jafe bu ñëwee Tuubaa la fay dugg ci màggal jege na juróom benn million ngi nit kon dañuy taxaw wax état Sénégal ne am na benn bis am na ay bis goo xam ne juróom benn million ngi dana ñëw Tuubaa kon lépp loo fi def na ko natt ci juróom benn million ngi nit wala nga xam ne boo ko deful ñëpp danañ am problème ñun loolu mooy suñu devoir loolu mooy suñu warugar lii lañu ko defee mais ñi nga xam ñoom lañ ko seqal bu ñu xamul ñu fi dugg nuñu toll ñun suñu wàllu bopp bu ñu xamul ñi fi dugg nuñu toll yëf day gën di manqué di dem ndax lépp loo xam ne xaymal nga ko tuubaa boo toogee diir bu gàttee Touba da koy weesu te jamono moo am foo xam ne fa la fa la toll euh, tollatuñ ci di di di lambatu ak ak ak dox doxinu gumba déedéet loolu jamono da ko weesu ndax science ci bopp moo ñu indil ay jumtukaay yoo xam ne mën nañoo xam lii dugg si Touba ñaata lañu. xam aussi ñooñu lan la ñu war a aajowoo ci am ndox lan la ñu war a aajowoo ci assainissement lan la ñu war a aajowoo ci wàllu lekk lu ñu war a aajowoo ci kaaraange lu ñu war a aajowoo ci wàllu santé mais loolu boo amul xayma yi doo ko mën a génne. kon xayma boobu defuñ ko ngir leeral nit ñi waxoon ne màggal gi euh, ren li ci teew ci doomu aadama daa bëri wut. xam nga daam ñoo xam ne xamuñu histoire am na ñoo xam ne. jàpp nañu Sénégal démb la tàmbali hmm. dafa am dafa am ñoo xam ne parce que amuñu amuñu culture ubbikuñu xamuñu lu bari malheureusement c'est comme ça loolu mënoo ci dara hmm. ba ñoom lépp loo xam ne dikk na rek dañ ko méngale at tey mais ñu lu ñuy def bee suñu tey nee naa la fukki at ak ñaar ci ginnaaw def nañ xayma mel nii hmm. booba kenn waxu ci benn baat. loolu moo lay xamal seen manque de culture bi nga xam ne ñoom moom la ñu nekk te ñu war a dem jàng ñu ubbi seen bopp yi xam ne nit ñi am na niveau boo xam ne agresse ba am na ñoo xam ne ko mënul nekk di liggéeyal Serigne Touba di am yeneen considération xam ñaa koy xool doo ko sax bàyyi xel parce que loolu dëdul dara loolu dëdul dara kon ku ku jàpp am na leen tax ñu koy def kooku mooy ko xam da nga di 2011 la moo tax ñu koy def li ñuy def dañ koo teg ci ci xam-xam lañ ko teg teg ci une base scientifique bu leer nañ ñi ma wax la li ñu ci jublu lan lañ ci jublu moo di ne wax ñi ko seqal ne leen lii mënut a ñàkk Touba lii moo dañu koy def bu ñu defoon na xayma yi 2011 magal du nekk jour férié. amee moo indi jour férié bi. moo ko indi ci lu wér wér man maa la ko wax moo ko indi parce que xayma yi ci man la déparé bañ ko def 2011 amaa loolu at mu yàlla sakk ay nit ñooy dem ci rajo yi. dëkk ci suñ nopp yi màggal Tuubaa yàq la ay nit ñoo ko daan wax ci rajo yi mën naan la diw ak diw ak diw chaque année daan ci rajo di ko wax naa daa bari accident xar yiñ ci rey bëy ci rey nag yiñ ci rey liñ ciy dépensé yàq la nagam ak nangam te booba parce que ñooñu gis nañ rek ne ñu ngi ñu ngi lewatal ay gàtt gis nañ ne nit ñaa ngi dépensé mais xam loolu mooy doxal économie loolu ma ñàkk xam-xam gi ma wax nit mënoo nekk spécialiste ci lépp wàllu koom day xam-xamu boppam ay nit di ko jàng ba nekk ci ay docteur comme ay nit ni ñuy jàng ci wàllu wér yaram ba nekk docteur comme ay nit ni ñuy jàng ci wàllu théologie ba nekk docteur ci wàllu islam kenn ku nekk nag bàyyee ko ak la mu xam boo bañ am problème ñu li ñuy def ci xam-xam bu leer nangi lañ ko teg te xam-xam yooyu yëpp nag la ñuy boole ka nga xam ne moo dégg diine dañ koy bàyyee diine muy waxtaan ci diine ka nga xam ne xam-xam màcc na ci wàllu docteur professeur Lamine Gueye nekkoon recteur université nekkoon recteur université Bambey nekkoon recteur université Saint-Louis di taalibe sëriñ bi far sax di taalibe sëñ Mountakha ci boppam kenn gënu ko xariñ ci wàllu kër docteur wérgu yaram ñu jël ko jox ko unité d'alerte ne ko saytuñu wérgu yaram màggal gi noonu lañ jëlee yeneen docteur yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu koom ñu ne saytu leen ñu koomu màggal gi ñu nii la ñuy doxee waaye boo bëggee na yow man xam naa lépp loolu da ngay juum man ngaa xam lii waaye nag bàyyil sa moroom xam leneen te la ma xam boo ko ci dëkkee rek da indi jaxase da ngay da ngay indi problème kon pour dul si sa question li ñu def am na fu ñu ko teg fu ñu ko teg mooy lan dañoo soxla xayma màggal gi nu mu toll ci wàllu zahir ngir ñu man koo waajal ba xam nañ fa war a indi naka lay toll nee naa léegi bu ñu defatoon xayma yi 2011 màggal du nekk jour férié ba ñu defee xayma en 2011 ci la nit gëjët taxaw ci rajo wala gi télévision ne magal tubaa yàqum koom la déggatuñu ko ci la état Sénégal xam ne jouru magal Touba ji dana ko indil koom moo xamante ne bii bu ko defee jour férié amul loo xam ne lu mu ci perte la ndax bu ko defee jour férié kenn du liggéey ni ngi ne ñaan permission dem te magal ki ci boppam bés bi lim ci récupéré ci ay taxes kenn xamul nu mu toll. taxes plus de quarante milliards de taxes. dañ ko ah loolu ci Màggal Tuubaa lan bi bés boo xam ne férié la ba pare état bi di ci récolté lu toll noonu ci ah, du ma du ma man man booy déglu samay discours euh, du may wax ne du may dogu ci ne lii fii rek la am xam nga daa wóorul adduna dafa xaw a yaatu wax naa léegi ne kenn xamul dara man jàpp naa ne lu lu néew li nga xam bëriwul moo tax même su may wax yu mel noonu sax même su may tëj ay wax dama naan ci li ma xam ndax keneen mën naa xam leneen donc loolu mooy ak maandute donc moo tax yooyu moom du ma ci bëgg di du ci bëgg di dugg mais li wër moo di ne màggal gi bu ñu defutoon loola kenn du ko def jour férié parce que même bi nga def loi bi ci motif yi nga xamante ne bii moom la ñu sukkandiku ba indi loi bi loolu lépp lañ ko ciy indiwaat jour bi nga xam ne ñu ngi koy voté à l' assemblée euh, ay député dañu ma doon woo di ma laaj ay argument pour bu ñuy développé ak di wax naka ñoom lañ war a lañ war a waxtaane nga xam ne étude boobu moom laa leen doon jox di ko di di leen ko résumel dañoo buñ demee jël parole taxaw ci taxaw ci assemblée nationale dinañ xam yan argument lañuy indi évidemment yooyu ay député ay murid lañu suñu ay mbokk murid lañu maa ngi fàttali ku mel ne ay dëmbooj ku ci ku ci sonnoon la wana ma ay yoonu yoonu yoon kilifa moo ko waxoon wol Cheikh waxtaan ci ndax na biir assemblée nationale di woote di laaj di argumenté di ci dem donc te même boobu sax moom bokkul ci pouvoir bi nga xam ne kon nekkutoon aussi loi boo xam ne loi politique la pouvoir ak opposition ñëpp a maase euh, voté ko kon yooyu mooy mooy li am solo donc loolu di fierté boo xamante ne bii liggéeyu sëñ Bass la ci màggal gi euh, kon ñëpp aussi war ko cee sant gis nga nag combat boobu moom la ñuy continuer parce que dafa am dafa am euh, dafa am loo xam ne euh, tey waruñu ko taxaw laaj te teguñu ko fen fenn tey amuñu sañ-sañu ne dañ defar assainissement Touba rek ne Thiel la amuñu sañ-sañu ne nañ jox ko ndoxum Touba ne Thiel la da nga koy argumenté ci xam-xam nga koy teg. ndax ñi ngay waxal itam ay borom xam-xam lañu ci ay programme lañuy dox kon boo leen di wax ci ak nit nga mën a waxee ak ñoom ci nga leen mën a convaincre mais tey jii bépp bailleur ak fu ma nekk ci monde bi même état Sénégal loolu ñu ne kat fii juróom benn million nit dafay daje kon nangam ji munu fee ñàkk fasaase dañ koy si signé xam ne di mëntu ñàkk kon loolu ci boobu esprit lañu koy defee kon ñi nga xamante am nañ yeneen ne xalaat su ma sañoon ñu bàyyi yooyu ñu xam ne màggal Tuuba dépassé na considération yi nga xam ne ñoom ci foofu la ñu toll yooyu ay tolluwaay la fekk at kenn du fa toll daaw tolluñ fa woon ren ña nga fa fekk at kenn du fa toll te lii depuis sëriñ bi ba nga ni ñu ngi ci te day continuer dem moo ëpp lépp ñun ñëpp mu ñëpp ñun ñëpp dañ ciy nekk bu jógee fi sunu njaboot ak sunuy sët ak continuer di ci nekk kon nañ ko nañ ko préserver xam ne xam ne ñi ciy liggéey xam nañu li ñuy def lu mu doon moo tax ñuy sonn guddi ak bëccëg. sëñ bi ñu gis ne màggal gi dafa bëri ay dimension dimension sociale dimension religieuse ak yeneen yeneen dimension ñu gis ne dimension sociale bi màggal Tuubaa événement la boo xamante ni euh, tey mën ngaa gis ñaar ñoo xamante ni dañoo bokk ci ay kuréel duñ tuddante sax mën a dajee Tuubaa ci kanamu bi te buñ fa dajee daañu daañu waxtaan nga gis tamit ñoo xamante ni euh, dañoo dañoo nekk ci ci ci diine gi peut-être bokkuñu ay gis-gis ñu mën a dajee Tuubaa ci ay jotaay loolu naka ngeen ko liggéeyee ba ba réussir ko ci màggal Touba gi. waa xam nga xam nga dimension màggal gi dafa dafa bari. Euh, ñu ngi wax léegi dimension spirituelle bi. Mhm. mooy jaamu yàlla gi. loolu benn ruu gi day day day dugg foofu. Mhm. kon te dimension man jàpp naa ne mooy dimension bi cëpp doole. am na dimension festif. mooy dimension bernde euh, rey nag yeeg yu mel noonu euh, dënale bi. boobu aussi dimension boobu ci am solo la ndax sëñ bi da ko cee defoon tudd ko tudd sax ne nag ci ginaar ba ci gileem ci ni ko mag ñi nettalee kon loolu dimension bu ci bu ci am solo la mu dikk ci dimension sociale boobu nga wax mais boobu dañ koy def dañ koy def benn étude d'impact étude d'impact boobu 2011 parce que ni ngi dañuy dañuy fàtte mais defuñu rek impact ci wàllu ci wàllu koom déedéet dañuy def impact ci wàllu ci wàllu koom def impact mooy jeexit def jeexeet ci wàllu euh, social def jeexit ci wàllu diine jeexit ci wàllu diine boobu sëñ sàmm Bousso nañ ko dénkoon moo ko defoon même téere ba moom ren euh, imprimé na ko ba disponible encore ci marché bi pour ñi nga xam ne aajo woon nañu ko euh, li nga xam ne mooy mooy dimension boobu gis nañ ne am na ñoo xamante ne bi juboo nañu Tuubaa am na juboo nañu fa ndax dañu bokk lépp du ñu tuddante ñëw daja fa ñu defal leen benn tànt boo xam ne fa la ñëpp di di di jëfandikoo ñu daja ñu daja fa ndékki daja fa añ daja fa reer ànd ak seen nawle dañuy xam ne fii ñàkk ñëw am fi place la yëfee déparé pour wax la importance bi nga xam ne am na ko bu doon bu bu bu doon ñooñu fa juboo donc benn yoon boobu rek la day mel loolu doy na sëkk ngir ñu defoon ko ñu gis ne xeet yi nga xam ne ñooy daje euh, muy wolof muy tukulóor muy séeréer muy njaago muy bépp xeet ci Sénégal ñëpp fay daje te buñ fa dajee itam kenn du xam kii ban xeet la bokk kenn du en tout cas kenn du wan sa morom ban xeet la bokk ñëpp rek dañuy indi kër ngir jëmmi sëriñ bi sant na ko yàlla ñu gis ne ci wàllu politique képp koo xam ne bokk nga ci parti politique ak bu mën a doon danañ fa daje. te buñ fa dee itam kenn du indi sa couleur politique ci màggal gi kenn ku nekk da ngay dikk rek sant la bi yàlla nga xam ne ko day mel ne bu ñu bu ñu xasee dugg si eh, li nga xam ne moo ñu muy différence yi nga xam ne am na suñ diggante yooyu dafay eh, dafay jeex loolu nag mooy mooy boole xol yi loolu nag moo ñuy jubale moo indi li ñu woowee cohésion sociale loolu aussi mooy indi ak dal ci biir réew mi loolu moo tax ba Sénégal am na loolu mënu fee xew ndax fi ñu daje day bari te li ñuy bokk te mënuñu koo seddoo dafa bari moo tax même bu amee ak réeroo bu mu doxee tuuti rek dana am lu ñu boole loo xamante ne bii réeroo ga faw mu jeex wala lañ bokk duñ ko mën a rafetal kon màggal gi boobu taxawaay la am ci la am ci réew mi nga xam ne kon bari na ay réew yoo xam te am nañ ay jafe-jafe muñ amoon bisu mel ne bisu màggal Tuubaa gii wala jafe-jafe dana jeex. même wute yi nga xam ne dañ koy am sax ci diine ci euh, ci mazhab yi euh, ak ci ak yenn gis-gis yi euh, association islamique yi nañu ñëw confrérie yi nga xam ne bokk ci nañu dikk buñ dikkee ci conférence bi kenn ko dañ lay jox kaddu nga exprimer mu wax la nga xam ne mooy sa mooy sa pas-pas la nga xam ne mooy sa gëm-gëm la nga xam ne mooy sa mooy sa gis-gis loolu di tolérance boo xam ne aussi dafay indi aw day wane aw yoon boo xam ne mooy li nga xam ne ñun noonu la ñu war a dëkki kenn ku nekk war ngaa mën a am sa gis-gis te du yàq dara ci sunu jëflante nañ ko war a rafetale te ku dem gëstuñ Muntaxa nga xam tey jii moo fi nekkal Cheikh Serigne tubaa ak ña nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu woon boo dikkee rek da nga xamante ne bii la la na nga mel ak la nga gëm ak la nga indaale bu dee pas-pasu sel di di di di lislaam rek loolu moom dañ la koy nangul cohésion sociale bi nga xam ne màggal dana ko ni ci réew mi loolu amul njëkk amul prix loolu rek jar na sax ñu defoon ko jour férié bis bis boo xam ne Sénégal yi yëpp dañuy maase daje te étude bi gën na ne jour màggal daanaka boo jëlee Sénégal 27 pour cent réew mi dañuy daje Touba te 27 pour cent yooyu mooy vingt 27 pour cent kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi kon foofu foog naa ne jafe-jafe bu mu mën a doon mën na faa amee mën na faa amee saafara am na yeneen dimension. dimension diplomatique gis nga ñi nga xam ne ñooy ñooy dikk jóge ci biti réew ni ñu bare waaye tamit gis nga code diplomatique bi gis nga ren la fa daje daanaka benn ambassadeur bu rek Sénégal desut réew yëpp ñoo ñoo dikk présenté wu. loolu aussi di loo xam ne dafay dafa yokku euh, maanaam Sénégal ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci bitti dafay dafay defar daram ndax ñoom bu ñu dikkee ay émissaires lañu. bu ñu delloo dañu nettali ne ah Sénégal day gis nañ fa loo xam nangam ak nangam am na borom xam-xam yu rëy rëy ñii ñoo jogee jógee Californie ñii ñoo ngi jógee Abu Dhabi ñii fenn fu ne ci àdduna si lañ jógee ku ci ne bi ngay nuyu suñ mën taxaa da ngaa fóon loxoom ku ci ne bi koy nuyu ñaari loxo ngoo ko jox ku ci ne jox nga ko respect boo xam ne boo delloo boo fonk du nit ku ñuul da fonk nit ku ñuul boo fonk du boo xamante Sénégal am na am na ñoo ñu ci bari keroog lañ ngëjët njëkk a teg seen tànk ci biir réew mi delloo tey ay junniy nit ñoo leen di topp am na xam ay millions nit la am ci ay followers. Mm. ñu leen topp ci réseaux sociaux yi. commencé nañoo bind ki sëñ Tuubaa di leeral di bind ki Sénégal di leeral. Mm. kon loolu aussi amul prix même ci suñu derub réew. nga xam ne kon aussi Touba loolu la jëriñ réew mi ci ci fànn sëñ bi ba léegi euh, ni ko waxee noonu ci euh, tarixa yi nekk ci réew mi. ñoom it daa amoon nañ taxawaay bu am solo ci ci ci ci màggal gi nga xam ne tarixa bu nekk ñëw nañ laatay màggal gi ànd ak sëriñ bi màggal gi ba ba ba ni màggal gi àggee. délégation yi jege na téeméer ne moo jógee ci kër diine yi kër diine yi téeméer boo ci boole association islamique. maanaam genn kër gu mag desu jóge nañ sax ba Mauritanie dikk teew si. ñi nga xam ne ñoom lañ noonu lañ tolloon ci ay ci ay nit aussi jege nañ ñeenti téeméer. ñoom boo xoolee ñoom ñoo daloon ci kër Sëñ Tuubaa ñoom ñoom si délégation bu ci nekk am na jataay bu yaatu ak Cheikh Mamadou Mountakha sëñ Bass itam guddik màggal gi ñoom ñëpp dem na saafonte ak ñoom waxtaan ak ñoom sant leen gërëm leen ndax délégation yëpp dañuy dañuy daje bu kër Sëñ Tuubaa dañuy daje salle bi ci salle mag bi dañuy daje ñu def waxtaan Daaru Manaan aussi dañuy daje ca salle de conférence ba ñu def ñu def waxtaan parce que seen taxawaay dafa rafet te dañoo bokk ci gan yi nga xam ne ci gan ñi gënal sëriñ bi lañu te ni ñuy dikkee boo boo leen dee gis ñu ñu ñu jël kaddu euh, ci conférence bi raw di def bu ñu waxee rek da xam ne ñii yéene ji nga xam ne am nañ ko ci ci bis bi da dañ ñoom ñëpp dañ ko jàppee seen seen yëfi bopp nga xam ne kon day day mel ni sax même buñ ko tijji woon cent pour cent wala ne képp ku bëgg a dikk dikkal la nga xam ne moo fay dikk ci ay délégation duñ ko duñ ko attan waaye loolu dañuy yokk rek ndànk-ndànk incha allah lu dal yi gën a yokk délégation yi di di gën di bari ndax ñëpp bëgg ak nañ foo xamante ne bii màggal gi ren ma màggal gi léegi kenn bëggatu ko kenn ko wuute. màggal gi kenn bëggatu ko wuute ba tax na ay doomu aadama yu takkoo takku ñoom ñooy ñëw ci dëkk bu sell bi Touba ngir teewee bésu 18 safar googu la ñu am mbégte nag euh, di dalal ci euh, plateau bi Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma mi jiite commission culture ak communication bu Grand Magal bu tubaa ci jotaay bi nga xam ne ñu koy amal. di defub xayma ci màggalu Tuubaa gi ñu euh, génn rek sëriñ bi mel ni màggal gi li ñu ko waxee sànq rek lim biy ñëw bëri na waaye des fois ñu nemmeeku ne da am na dina am ay accident ba des fois am ñoo xam ne dañ dañ ciy dañ ciy loru euh, sëñ bi ren donte accident yi mën nañ ne wàññeeku na par rapport ak at yu weesu lan nga jàpp ne suñ ko defee accident yi dana gën a mën a wàcc nit ñi di ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ci màggal waaw foog naa loolu ñu ci aw ñu ngi ci aw yoon ci wàllu sécurité bi ndax ren boo boo seetloo ñun dañu teel a màggali waaye am na ñoo xam ne ñëw nañu mais dañuy wax ne ñu force de l'ordre yi dañ doon nekk ci yoon wi di obligé oto yi ñu daw ndànk loolu jàpp naa ne ci li wàññi accident yi la bokk euh, beneen cause aussi accident yi donc loolu mooy vitesse yi beneen cause aussi mooy màggal bu bu ñëwee oto yëpp ay génnandoo ku dengee sab oto sax nga ne peut at mépp dawloo ko màggal da nga koy bëgg a génne waaw loolu aussi foog naa ne loolu nag bu fekkee da nga ko génne fekk gaaloon nga ko lu yàgg wala xañ na oto bi aussi mus ta gé daawul génn dëkk ba nga xam ne fa la dëkk nga bu xëy daawul ko deux cent trois cent kilomètres man mm-hmm. naa mën naa indi ay jikko ji jikko yi day daal di feeñ mm-hmm. loolu aussi foog naa dina am loo xam dina ko yokk ci accident yi kon oto yi gën a baax jàpp naan dana wàññi accident yi mm-hmm. ñu gën a fonk visite technique yi dina wàññi accident yi ñu gën a fonk aussi pneu yi nga ne kenn ku nekk balaa sa oto ñëw ci màggal nga def ko révision ba mu oto bi mucc na ayib ngir mën a def deux cent trois cent kilomètres dem Touba aller retour te nga euh, daw ndànk kon jàpp naan mesure bu ñu ko defee boole ci nag boole ci nag ak itam euh, dawalkat yi di dallu dawalkat yi di dallu parce que itam boo bëggee def dakaar tubaa aller retour ñëw dikk ñëw dikk ñëw dikk nelawoo noppaluwoo te nit du machine da ngay dem ba boo moytuwut mën ngaa nelaw ci yoon yi wala nga sonn wala nga mm, ma ngi noonu soo yow si day indi day indi yeneen jafe kon loolu sur nombre bi itam nag moom itam day day indi ay jafe-jafe mm-hmm. ah bëgg ñëw ñëpp bëgg ñëwandoo waaye loolu sur nombre boobu li ko mën a wàññi rek mooy oto yu baax yi gën a bari ndax day mel ne oto yi doyuñu ngir transporter nombre bi nga xam ne mooy dikk Touba kon day mel ne bis boobu faw nit ñi def sur nombre te bis bi nekkul bis boo xam ne xañ na force de l'ordre yi dañuy dañu mën a téye oto yi di leen contrôler parce que loolu aussi boo ko defee daan kenn du agsi donc moo tax aussi nit ñi day am loolu ñoom ñoo ko war a xam kon nag euh, nañu nañu daw ndànk nañ fexe ba oto yi baax chauffeur nañu noppalu nañ moytu aussi surcharge bi ci biir oto yi lii buñ ko defee jàpp naa ne sunu borom mën nañoo mën nañoo suturaal waaye ren moom taxaw bi nga xam ne takk der taxaw nañ ko ci yoon wi doon wax nit ñi ñuy def ndànk dégg naa noonu lañ defoon loolu tax na ba accident yi wàññeeku na donte nag am nañu ci loru ñu di ñaanal yàlla tey tey jaali seen i bokk sëñ bi wax nga sànq nee nga lim bi ñëw Touba bëri nañ bëriwaay boo xam ne oto yi sax du leen doy gis nañ ren train bi ñëwaat na Touba ginnaaw ay at yoo xamante nii toogoon na ko ñëwut nga jàppoon ne suñ dolli woon train yi loolu dana ko mën a saafara. dama nekk solution mais mais ren train bi 4000 personnes la ñu indi xam ci presque 6 millions du dara <laughs> moom la indi waaye loolu ab tàmbali la kon tey jii train yooyu bu yokkoo parce que parce que dañ dañ lay wax ne la euh, tukkib saxaar. foog naa ne mook avion mu mooy sécurité mhm. kon tey jii bu train bi yokk woon mën a indi lu bare bare bare ban fexe ba mën a indi genn wàll nit ñi naa yi dana wàññi ku baax mais ñoom def nañ effort parce que ñu bari jàpp nañ train bi dikk fexe nañ ba dawal ko ba mu dikk tubaa te bi mu jàllee maa ngi maa ngi maa ngi leen gis ñu naan nag fi ne amatuñ droit taxaw kon day mel ne ci njabaar googu gi nekkoon ak effort yi nga xam def nañ ko ba indi train bi day mel loolu dañ ko bëgg a continuer ah, waaw ni ni ni ni ma dëgg ñu wax ko day mel na ñoom lool loolu mooy li bëgg te xam bi day day symbole euh, ndax train bi jàppal ne ci liggéey jumaayu Touba bokk ndax tronçon bi nga xam ne mooy Diourbel Touba loolu day daa bokk ci bilan daa bokk liggéey jumaa ji tey bu ñuy xayma xaalis bi ñàkk ci jumaa ji tronçon boobu Cheikh Cheikh Moustapha def ko dañ ko jar a boole ndax bu amutoon jumaa ji du taxaw ndax dafa nekkoon condition ci lii liggéey jumaa ji ci ay matériaux mën a agsi kon loolu aussi daa am benn symbole boo xam ne am na dafa amoon dafa nekkoon ndamul yoon wi ba ba ca booba sëñ Modou da caa dugg ànd ak euh, Abdallah doomu Cheikh Sidiya ak yeneen kilifa ak gouverneur général ñoom ñëpp tey boobu ñoo ko duggoon ñëw fu gaar bu mu àgg taxaw kilifa yi dugg bañ agsi Touba ñu wàcc ci gaar bi dox wutal Daaru Xudoos loolu dafa nekkoon ndamul yoonu murit kon nag loolu waruñoo seetaan aussi muy muy taxaw loolu si di wane euh, ni nga xam ne aussi yoon wi noonu la tàmm liggéeyee nga xam ne maam gàllankoor bu ñu ko bëgg a teg rek dana jóg ci ak xereñam ak ci pas-pasam teggi ko ba gàllankoor googu moom bu soobee yàlla day féete moo tax biñ ko nee train mënut a ñàkk ndax bu train amut matériel bii dikk ci jumaa gi duñu am lu ko indi mu ne ay ca bisimilah nit ñaa ngi fi te pas daa ngi fi kilifa gu nekk joxe mbooloo ñu daal di ñu daal defar raay bi matériel bi dikk ñu commencé jumaa ji kon dafa dafa nekk lu am solo ci màggal gi raay bi wëtt wëtt yam ci màggal gi war nañoo fexe ba aussi aji mu jot ñi nga xam ne bëgg nañoo dikk sax ñu wuta leen train boo xam ne danañ indi Touba te bis bu bis bu meleen nam war a gis naa ko rafet na trop am na première am na lépp climatisé rek lépp am wifi loolu foog naa ne nit ñi buñ ko xamee dana bari ñoo xam danañ bàyyi seen oto jël train bi dikk julli juma wàññeekuwaat te daanaka doom am du am benn embouteillage ndax daf lay noppal fi mu doon boo tukkee boo tukkee bitim réew même fooy dem train ngay ndax mu gën a gaaw. sëñ bi ñu mu waxtaanee lu jëm ci wàllum euh, taw bi ak inondation yi ndax gis nañ ne màggal Tuubaa ren wala at yi sax la ñuy wax euh, dafay tombeek nawet mu mel ne ndox mi ren bëri na lool bëri na ay wax yoo xam ne ñu ngi doon jóg. ba nga xamante ni sax am na taxawaay boo xam ne état bu Sénégal euh, ñu ngi koy taxaw ci dëkk bi keroog Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Khadir mi jiite comité d' organisation leeral muy 45 milliards yi nga xamante ni état bu Sénégal euh, jot nañ ko def ci Touba mu jëm ci wàllu assainissement bi tey ci wàllu assainissement la ñuy wax mu jëm ci Touba fan lañ ci toll ak lan la ci état bi war a def ngir mën a saafara la jafe-jafe assainissement Touba. waaw xam nga euh, assainissement Touba dafa dafay dafay lu bari ndax bekkoor daa amoon ci réew mi à partir de 1970 ba 2000 Sénégal li mu taw bariwul mooy at yi nga xam ne day dem ba wax set. ba du sëb am na fi ay 97 96 yooyu rek ñun ñëpp ñu ngi ko fàttaliku day dem ba wax setu taw maanaam ñëpp dañuy jaaxle euh, diggante boobu àll bi metti yëf yi tar mu am lu ñuy woy exode rural parce que baykat bu nekkee ci àll bi te bayatut kon amatul lu muy dunde def fa dara kon jóge ci àll bi toxu ci taax yi ngir man fa yaxantu day daal yëpp intere ci moom diggante boobu ñu bari ci lañu ci lañ ci lañu tuxoo ñëw ñëw dëkk si Touba diggante boobu itam boo seetloo ci fin année quatre-vingt jàpp année quatre-vingt-dix yi ñu bare bari dañoo génn réew mi dem Italie dem France France yàgg nañ faa dem mais surtout Italie année yooyu la xewoon ndax boobu aussi visa yi xawoon naa yomb waaye ku génn rek la nga njëkk a def mooy tabax kër tubaa tuxal fa tuxal sa njaboot loolu tax ba dëkk bi fees comme bi ñu ñëw nag fekk na ñu nekk ci bekkoor doo tit fu taa doo tiit fu taawul nit ñi fu gën a jege rek mbaa fu gën a jàppandi rek ñu def fa kër daal dafay dëkk fekk foofa da caa bari barab yoo xam ne ay barabi ndox la biñ demee nag ba cycle sécheresse bi jeex ba taw bi commencé waat à partir de des années 2000 taw bi commencé bari jafe-jafe yi daal di commencé juddu kon la ko jiitu Tuubaa soxla wutoon assainissement ci ni ñu ko gisee woon. nekkutoon en tout cas jàmputoon dafa amoon ci assainissement sëñ Saliou moo ko fa defoon bi jafe-jafe commencé juddu président Abdoulaye Wade commencé assainissement Touba ba liggéey ci loo xam ne war naa toll juróom-ñeenti milliards di tax ma ne man na juróom-ñeenti milliards mooy président ak Sall ñëw bor boobu la fekk ñu ameel ko Enan Chine mu liggéey ko te fayaguñ ko nga xam ne booba ca lañ ko fay continuer liggéey bi booba nag assainissement bi day daal di jàmp ndax ndox mi dellusiwaat na. nit ñi dëkk nañ ci barab bi taw yi assainissement léegi mënatu la ñàkk waaye fekk na Tuubaa la fa dëkk kenn xamul nu mu toll wax naa léegi aussi dëkk bi ni muy yokkoo kenn xamul lu mu toll magal gos yi kenn xamul nu mu toll kon jafe-jafe daal di commencé ñu commencé investissement yi ca loolu la ñuy wax ne def nañ ba def ak quarante cinq milliards loolu boo gisee mooy bassin ya fa nekk muy la nekk Kër Ñang nekk Kabbu la nekk Dar Rahman mooy mooy station pompage yi nga xam ne ma nga fa moom itam dafa nekk ci station pompage bari na donc loolu yooyu mooy investissement yoo xam ne def nañ ko am na ci am na ci bus yoo xam ne dañ ko suul ci suuf muy euh, tuwa yi deux mètres sur la nit da ciy dox di dem donc loolu aussi manque fa ci investissement yi la la bokk bari na foo xam ne danaa taa ndox tey jii boo demee doo doo fekk ndox Touba dañaa def plan Orsec bu tawee ñaari ñett ren amul plan Orsec daaw jég rek plan Orsec am na le ministre de dikk bi mu dikkee ñu d'urgence ñu de ñu débloqué waat lu mat vingt trois milliards loolu mooy li ñu mujj def commencé waat liggéey yi am na ci am na ci tuyau yoo xam ne mooy tuyau bi bi jëm Daaru Rahman nga xam ne dafa dafa longe tali bi booba lañ ko fa dal def yokkaat capacité euh, bassin yi créé waat kër kër kappu mais aussi yokkaat yokkaat capacité de de pompage bi nga xam ndox mi ni muy dikkee ni muy génn dañ ko dal doublé kon ay liggéey am na fa ci fànn googu liggéeyoo bu dee quarante cinq milliards euh, ñu def plan directeur de l' assainissement maanaam xayma assainissement dëkk bi lan la aajowoo loolu jàpp na cent soixante dix jàpp deux cent milliards mooy la dëkk bi aajowoo ngir assainissement bu baax loolu nag bu ñu fa defee quarante cinq ak ñoo koy def luñ jàmbaare jàmbaare jàmbaare góor ñu góor góorlu mënut a feeñ. ndax ndax vingt cinq pour cent la vingt cinq pour cent la vingt cinq pour cent mi ngi mel yow tey jii sa salaire ku ci daggoon cent quinze pour cent da nga xam ne fayuñu la loolu dama mm. jox misaal moo xam ne mën nga comprendre rapidement kon loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne mooy bi am Touba la nga xam ne moom la dëkk ba aajowoo ci assainissement moo bari te loolu tànk defuñu ko ba mu weesu xaaj jàpp nag di yéeg jëm cent pour cent na mu war a feeñe mënul nee feeñe loolu nag li koy saafara mooy ñu baral jéego yi yokk lañu fay def loolu mooy ñaari solution yi donc baral jéego yi moo di ne ñu gën koo gaawal mais aussi nag yokk volume d' investissement yi fu ñu def sept milliards dix milliards vingt milliards tey ñu ne woon maa ngi jël ñetti at at mun nañu jël cinquante milliards def ci dëkk ba mu ñu ko defee ñetti at problème bi jeex loolu mooy importance su xayma yi def. parce que bu ne 6 millions dana fe dana ñëw Touba kon dañuy xam ne assi assainir dëkk bi mënut a ñàkk kon ñaari am na solution xam nañ fi ñu jëm xam nañ ni ñu war a def xam nañ ni mu toll solution bi mooy lañ fa war a def nañu ko jël ñu def ko fa ci nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a baree pour problème bi jeex ñëpp noppul kon day mel ne bu ñu war a def ñeent benn la ñu defagul kon dañu leen sant. di leen gërëm mais nag di leen wax ne solution am na ndax xam nañ xam nañ ñi war def nu mu toll xam nañ ñaata ko war def kon solution bi ñaar rek la mooy jéego yi nañ ko nañ ko baral li ñuy def itam nag di ko defandoo muy volume d'investissement yi aussi na gën a takku nga xam ne kon lu ñu waroon def ci juróomi at mën nañoo lijjanti ba def ko ci benn at ñaari at gën ngaa bari ñetteel ñu ko defee diir bu gàtt problème boobu dana jeex nit ñi kenn dutu jàmbat ñëpp danañ ñëpp danañ nekk ci mbégte ñu nekk ndox mi ñëpp aussi danañ ca danañ ci génn ndax ren ji ONAS góor nañu góorgóorlu bi moo di ne même organiser nañ nit ñi ci quartier yi Touba dafa am ñoo xam ne aussi ay association la nga xam naka jëkk dañ daan jëngu ci wàllu mbënd mi ñu jël ay moto pomp jox leen maire bi jël ay moto pomp joxe lool sax ma wàññi yëf nga xam dañ doon dugg ci koñ yi ak ci biir kër yi di pompe di di génne buñ ko pompee tur ko ci mbedd mi foofu aussi moto pompe yu mag ñu pompe foofa yóbbu ci réseau bi ah waa DPG yi ñoom itam jàmbaar lañu ñoom am na am na moto pompe yoo xam ne aussi indi nañ ko fa man foofu ñu nekkoon ci Touba mosquée kër ya fa nekk ñu màggal bi dese ñaari fan dugg nañ fa ci ay kër yoo xam ne lañ fekk am ndox kenn xamul nu mu toll daanaka seen i borom ñenn ñi sax dañoo yéegoon ci kaw ñenn ñi dañoo génnul seen i kër waaye dañ ko pompe ba mu jeex takk ba mu génn malheureusement bi bi ñëw fekk booba sax parewuñu ñu ne ma kat seen mbir fii bu ñu fi amoon juróom-ñetti fan dañ fi def liggéey liggéey boo xam liggéey bu rëy la mais loolu lépp ay jàngat lay doon ngir bu ngir bu benee ne ñu xam naka la ñu war a gën a mën a mën a taxawee mais daal problème assainissement Touba moo di commencé nañu def nañ lu bari waaye li ko kon nañ baral jéego yi nañ yokk lañ fay def <laughs> sëñ bi mu mel ni euh, couverture médiatique euh, màggal tubaa dafa nekk lu am solo loo xamante ni dafa intéressé média yi nga xam ne dañoo nekk Sénégal ak bitim réew yëpp ñuy ñëw di couvrir màggal gi gis nañ chaque année da ngeen ubbi benn plateforme boo xam ne ci la ñuy inscrire ngir mën a am accréditation ren ñaata organe ngeen accrédité ci màggal ki ak ñuy couvrir màggal gi seen xayma. li xam ne jot nañ ko man na mille cinq cent soixante-deux demandes junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak lu topp moom lañ jot ci ay demandes. ñu bëgg couvrir màggal gi ñu couvrir màggal gi ñoo ngi nag ñëpp mu ñoo dikk parce que mën nañoo jox ñëpp ne leen dikk leen waaye buñ dikkee duñ am fu ñu leen dalal te loolu aussi foog naa ne amul njariñ kon dañuy def euh, ab euh, dañuy ab sélection jël ña nga xamante ne bii buñ dikkee li ñu bëgg danañu ko am tey tam ñoom du nekk ci condition yoo xam ne ñu metti la ñu jël ñooña di leen ña ca des nag danañ mën a màggal si waaye aussi buñ dikkee ñun suñu responsable si ñoom du du toll noona parce que aussi boo jël itam da ngay jël loo xam ne attan nga ko te te mille cinq cent demande xaw naa xaw naa jege dayoo te da ci am ñoo xam ne sax nag boo boo xoolee ba ci biir eh, daanaka duñ am droit sax ci def demande yu mel noonu parce que duñu am benn mandor ngay nekk journaliste wala benn mandor ngay nekk en tout cas bokk ci presse nga xam ne même boo leen booleen ci presse bi waa presse bi ci boppam sax ñoom loolu du leen neex ci biir loolu ñun dañu yemale suñu yëf officiellement ci juróomi téeméer cinq cent jàpp nañ ne bu ñu amee cinq cent journalistes mën nañoo couvrir événement bi ci anam goo xam ne anam gu matal lay doon te ñun dañu leen mën na jël def ci ñoom la nga xam ne moo ca war ak lañ aajowoo lépp dinañ dinañ jéggi nag cinq cent yi dañ dem ba 600 dem ba dem ba 700 loolu naka lañ ko defee ci biir 500 yooyu da ci am ñoo xam ne bu ñu dikkee duñu duñu dal ci comité d' bi organes yu bari dañoo am ay njaatigi biir Touba bu ñu dikkee dañuy dem ci seen njaatigi dal ak ñoom kon ñoo ngi dañuy libéré ay place place yooyu ñu libéré nag ñun moom la ñu jël nag jox ko ñeneen kon ñun danañ daloo 500 personnes mais ñiy accrédité dina ëpp 500 dana jàgg dana mat 700 personnes yoo xam ne ñoom la ñu accrédité jàppal ne yi duñ dal ci ñun. 500 ci ñun la ñu dal ñun ñëpp nag ñoom ñu couvrir euh, magal gi euh, te loolu dañ cee dañ ko fonk ndax presse day partenaire ci li nga xam ne mooy li ñuy liggéey ndax dañ ñu ne njàngalum sëriñ bi na tasaaroo màggal gi nag tasaaroo communication bi na ci ñëpp jot loolu nag mënoo ko wax ba noppi di ginnaawal presse moo tax aussi presse ñu jël ko euh, def ko un partenaire privilégié lépp lu ñuy def ñu boole leen ci di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom te loolu am nañ ci yeneen xalaat yoo xam ne am nañ ko ba bu demee déwénee sax bëgg nañu rencontrer même les patrons de presse def ak ñoom séminaire euh, waxtaan ak ñoom xool yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel bu ñuy bu ñu bu dikkee Touba xool yooyu aussi yan saafara lañ ci euh, lañ ci mën a indi kon dañu bëgg partenariat bi dañ koy dañ koy gën di pousser am na même ñuy proposé naa nañu wut ay maison de la presse loolu aussi foog naa ne yoon wi àgg na foo xam ne war naa maanaam ay këri boppam yoo xam ne bu màggal gee ñu nekkat journalistes yi nañ dem ñu dal ca kër gee loolu aussi parce que sëñ bu joxe ndigal rek yenn cheikh si mën nañ ko tabaxal fu mu bëgg ak ak nu mën a toll ci ci ci étage te dëkk bi noonu lay mën a continuer di di développé beneen euh, beneen bi am ci presse bi mooy gis nga ne lépp dañ ko liggéey te amu amuñu ñoom benn contact lépp dafa jaar ci xarala yi loolu aussi nekk beneen innovation boo xam ne am na yow yaay dugg ci sa plateforme bi bind remplir waaye boo dikkee da nga fekk si lépp noppi ñu jox la ko nga dem tey ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci àdduna ci wàllu organisation ak wàllu naka la ñuy gérer presse bi ñen nañu def nu ko raw ñun noonu lañ doon def te loolu ñëpp gis nga aussi euh, cérémonie gis nga bracelet yi ñu leen joxoon mu am ay QR code nga xam ne même day contenir ay information ci Touba ak ci sëñ Touba loolu lépp ay amélioration yoo xam ne def nañu ko te bu déwénee aussi danañ ko yokk bu déwénee même mën nañoo dem ba carte presse yi ñu bàyyi ko def bracelet yi ndax moo gën a moo gën a jàppandi moo gën ak jamono te tamit ay information da ci nekk yoo xam ne boo ko tegee sa xam loo xam ne sax jërul ngay dem di ko laaj dem di dem def ay recherche donc daf leen noppal donc pour waxal ne la ci ci processus boobu la ñu la ñu nekk ngir di ngir di gën a taaral ngir di gën a noppal nit ñi ngir di gën di mettre dans de bonnes conditions donc pour aussi nga xam ne comité bi ñi ci nekk ay nit ñu xarañ lañu ñoo xam dañuy dañuy liggéey di jëfandikoo les outils les plus modernes mu nga xam moo am ci àdduna si ku mel ne euh, sëñ abu yooyu moom moo koy saytu waa secrétariat ñoom ñooy defal yu mel noonu waxtu nekk ñu ngi ne ñu ngi ne innovation yoo xamante ne bi ñëpp dañ ci dañ ci kontaan te loolu defuñ ko rek ak commission communication mbooleem commission yi lañ koy lañ koy defal commission bu nekk ca nañ ca nañ koy seetoo danañ ci indi xarala goo xamante ne bii bu noppee ñëpp ci am mbégte. sëñ bi euh, mu mel ni daanaka waxtu yu mat na waaye ñu yëkkati plateau bi rek euh, benn question boo xam ne day jëm ci comité d'organisation bu Magal Touba ndax dafa am ñu jàpp ne des fois sax lañ koy laaj ñoom dañoo jàpp ne Magal Touba rek ñu duggee ci safar gi lañ koy tàmbalee waajal wala bu sëñ Bass tàmbalee recevoir délégation yi lañ tàmbalee waajal euh, Magal Touba gi comité d'organisation nan lañ koy nan lañ ciy liggéeyee ak nan lañ ciy liggéey ak état bi. loo mais boo jëlee rek wàllu commission communication. ak culture. xam nga ne mënoo recevoir juróom ñaari téeméeri nit ci ñetti fan ñeenti fan loolu dafa laaj wàccaay wàccaay wàccaay bu yàgg laaj nga jël wàllu sous commission culturelle nga def juróom ñett fukki waxtaan ak lu mat juróom benn conférence ak na guddeeg bëccëg nga dëkk ci plateau télévision yi ak si internet yi mënoo ko def ñetti fan ñeenti fan donc am machine la boo xam ne tey màgg nañ ba pare nit ñi bu ñu toogoo ba dallu dañuy toog def évaluation màggal gi naka lañ ko dunde yan rëq-rëq la am fan moo waroon dox te te doxut lan moo ko tee dox fekk booba commission bu nekk def na rapport am naka la ko saytoo loolu buñ ko joxee coordonnateur bi ñoom ñu saytu ko xool ko waxtaan yi nga xam ne mooy kilifa gi di njiit lii di sëñ Bass ci lañuy ñu soog a dajale de fan ñett yu ne da nga dégg ñu ne am na réunion commité d'organisation loolu ñun dañ ñoo ko yëg ndax ñun dañ daje sous commission yëpp dikk mbooloo mi yëpp dikk teew ñu commencé def ay réunion ak administration bi muy nguur gi boo gisee CLD bi bu ñu waree ba am ay fukki fan juróom njëkk yi ci dañu koy def buñ ca jógee ñu ñu demaat réunion ak préfet demaat réunion ak gouverneur demaat réunion ak ministre de l'intérieur ñëwaat defar réunion tubaa évaluation ak ministre de l'intérieur kon loolu mooy luñ seq ak nguur gi ci ci fànn googu beneen fànn gi ci sunu biir day am ay réunion intercommission dañ naan tey am na réunion boo xam ne concerne commission communication ak commission relation extérieure wala ñoo tey am na réunion boo xam ne concerne wàllu santé hygiène assainissement ak wàllu commission organisation commission yooyu nga xam ne ñoom dañuy daje parce que seen liggéey am na fu mu duggante ñu war koo texantal war koo war koo leeral yow fi nga tàmbalee yow fi nga yem lañ war a ànd naka lañ koy àndee. commission euh, réunion intercommission yooyu aussi dañ koy def ci teewaayu coordonnateur bi ak ci teewaayu secrétaire général. kon pour wax la la liggéey bi liggéey bu yaatoo yaatoo yaatu la. mbooloo jeex jeexit mooy ki nekk di ci liggéey boo jëlee rek aussi commission culture et communication moom laay joxe exemple bi tey ji am nañ juróomi sous commission. ci biir sous commission yooyu commu sous commission boo ko jam lu gàtt gàtt mën nga caa fekk lu mat trente quarante personnes boo demee ci antique mais ñëwaat ci commission bi yore wàllu hébergement ak restauration bi si Mourou Mbacke yor moom itam da nga ci fekk lu mat trente quarante cinquante personnes ndax toggul juróom-ñaar téeméer nit rek wàññee rek ñaata wàññ lay war a nekk dana léba ñaataa koy def oto yoo koy yóbbu donc ñen ñoo koy taxaw buñ fa buñ nekkee juróom-ñaar téeméer nit ñi aussi fa ñuy nekk ñen ñoo fay nekk di ko taxaw di indi darab yi di indi matelas yi di ndox nettoyer barab bi liggéey la li ñuy li ñuy li ñuy gis rek moo di ne eh, ku toog télé bi rek di def ab conférence am wala muy def présentation waaye fekk am na liggéey bu rëy boo xam ne moo nekk ci mu nekk ci ginnaaw nit ñi lu mat juróom benn weer du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg lépp rek ngir bisu Sëñ Tuubaa bi mel na war a mel te itam loolu nit ñi dañ cee am mbëtt mbégte la ci bu leen sëñ Bass tànnee dugg leen ci liggéey bi mbégte la aussi ñu gis ne moom mi nga xam ne moom mooy président bi jiitu du nelaw guddi du nelaw bëccëg du noppalu muy mbégte encore ci ñu gis ne moom mi président bi lu ñu ko laaj nu mën a toll du ne xum day gën a joxe lépp ngir bis bi jag donc boo amee njiit lu mel noonu nag bu fekkee dara ci ngor mi ngi ci yow waroo noppalu lii mooy liggéey bi kon nit ñi noonu la lañuy la ñuy liggéeyee te nag lañ cay lañ cay dabb ak lañ cay bëgg lépp rek mooy ngërëmul ki nga xam ne moo di Cheikh Mouhamadou Mountakha beneen bi li am ñoo xam ne jàpp ne lu dul jeex moo ci nekk moytu ma yi ngay dégg ak ak ak ñàkk xam fa la yem commission bi concerné budget bi xam nu mu toll xam nga trente million trente millions ku la ko waxoon doo ko gëm li ngi ne ay centaine de millions la mhm. boobu culture ci la bokk su commission culturelle mhm. boo jëlee wàllu intique ci bokkaat mu ñëw wàllu accréditation ci bokkaat hébergement ak restauration bi ci lay bokkaat doo xam nit ñi li ñuy liggéey maanaam naka lañ koy réussir ak ak ak moyens yi ni mu day mais loolu warut a jaaxal kenn parce que xamul lu barkeel dafa gën lu bari te Sëñ Tuubaa ay mbirum dafa barkeel dafa sekki ba noppi moo tax loo ci ànd ak pas-pas rek dafa daal yóbbu. commission yëpp ci condition yi la ñuy liggéey commission yëpp ci condition yi la liggéey. waaye sañ fu ngeen jëlee xaalis. sëñ Bass mooy financé. Hmm? sëñ Bass mooy financé. c'est hmm? le président du comité d'organisation moom mooy financé loolu ñëpp xam nañ ko. am na ñu ba léegi daa mel ni. kon xam tey. lu bëri ci màggal gi moom ci poosam lay génnee. moom mooy financé ci comité jërëjëf sañ bi ci leeral yu am solo yooyu mu mel ni euh, tax nga ba ñu bëree bëri lu leen lëntoon ci comité d'organisation bu màggal Touba ñu xam ko mu mel ni li ñu cëraloon ci wàllu waxtu daa mat yan kàddu ngay yëkkatee jotaay bi. waaw léegi kàddu yi moom ay kàddu yu cant lay doon kàddu yi kàddu yu cant mu koy def nag ci turu ci turu sëriñ bi di sant mbooleem ñi nga xamante ne bii rek def nañ seen loxo ci ci màggal gi di sant mboolem ñi nga xam ne aussi ñëw nañ màggal si euh, di presse bi di sant itam ñi nga xam ne ñoom lañ seqaloon réunion yi ñu doon def la ko dalee ca chef de village ba ca miss de l'intérieur ak président ma xam ne moom moo ko santoon mu jiite réunion yooyu di sant mbooleem aussi kër diine yi ci li nga xam ne lañ ñëwee di sant suñu gan ñi nga xam ne ñu ngi jóge woon bitim réew def ay six mille sept mille kilomètres mm-hmm. ñëw ngir bésub euh, sëriñ euh, sëriñ Tuubaa bi kon daal kaddu yi moom kaddu yi cant la gannaaw buñ sant gannaaw buñ sant la yàlla sëñ bu pare mm-hmm. ñun ñoo leen di amee ak cant di leen sant nag yéen waa presse bi particulièrement ci seen taxawaay bu rafet ndax bari na foo xamante ne bii message bi àgg na fa yéen a ko fa àggale loolu mooy li réalité mm-hmm. ndax jumtukaay yi bu amutoon doo wax àdduna sëpp di la dégg mm-hmm. te léegi man ngaa toog fi wax nee naa ñu ne bitim réew ñoom sax ñoo ñuy gën a eh, bàyyi xel ñoom ñoo ñuy gën a seetaan ñoom ñu ci information yan leeral aussi parfois def ci daf ci baax parce que itam nag dañuy liggéey di liggéey communauté bi kon képp koo xam ne taalibe nga rek jàpp nañ ne actionnaire nga ci te kon am nañu aussi euh, obligation ngir leeral la bu fekkee da bëgg ñu leeral lañ la war a leeral loolu lu lu lu la euh, parce que nit ñi aussi euh, ñu ci ëpp am am na yàqkat gaa mënut a ñàkk parce que cent pour cent amul fenn mm-hmm. mais li ci ëpp moom lu baax moo leen tax a jóg lu baax moo leen tax a jóg donc boo leen leeralee rek bu leeral ci seen bopp foog naa ne dara dara nekku ci kon daal ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu xam ne daal di ñaan yàlla ñu màggalaan ay màggal yoo xam ne euh, màggal yu yu dàq gii sax weesu lay euh, lay doon loolu su du yomb nag ndax màggal doon dafa dafa dafa dafa exceptionnel ah excepté ci mbooloo ci ay xéewal nit ñi njàqal ñu amoon ñu dem waaye kenn ku nekk màggal nga ba ba desal <laughs> loolu rek sant yàlla rek. <laughs> alhamdulilah jërëjëf euh, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma mi nga xam ne moo jiite commission culture ak communication ci comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba moom lañ doon dalal tey doon waxtaanee moom ci li nga xam ne moo jëm ci bilan Magal Touba édition 2023 bi. indi na ay leeral yu am solo waaye Serigne bi yow dañ lay santaat bu baax a baax ñun di la gërëm ci turu presse bi yëpp ndax yaay suñu njaatige ci comité d'organisation bi. gis nañ ubbeeku gi gis nañ tamit euh, jàppandal gi ci liggéey bi nga xamante ni kenn ku ci nekk waxtu la yittewoo da nga ko taxawu ba la nga xam ne moom la yittewoo ci wàllum tasum xibaar ak communication bi mu am ci lu kayo njortam ñu ngi lay santaat baax di gërëm waaye di sant tamit président comité d'organisation muy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir ci liggéey bu am solo bi nga xam ne réussiraat na ko ren ji ci atum 2023 bi nam ko daan réussir ci at yu weesu ànd koog mboolem yi koy defal gis na lépp incha rabbi ñu sant tamit mbooleem ñi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ci bitim réew ci mbooleem plateau yi nga xam ne andoon nañ ko ak yéen ci wàccaay wi ci màggal tubaa gi bii nekk après màggal muy bilan bi ñu santaat leen bu baax a baax gërëm leen ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des mourides mu gën fee yàgg lool te gën a wér ñu yàgg ànd moom màggal Tuubaa yi sant mboolem kilifa diine yëpp ñaanal leen ñoom ñëpp ñaanal mbokki taalibe yi waaye ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci yoon wi bi ñëw ci màggal tubaa gi yàlla yërëm leen jéggal leen tàbbal leen àjjana ci barkeb Cheikhul Khadim ñu ànd waajal gàmmu 1445 ginnaaw gàddaay gi datum 2023 wasalaamualeykum wa wa barakaatu jërë ngeen jëf salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar